les routiers d'Afrique samay mbokki safoor yéen a ngi am jaamu ndax amoon naa waaw ñun da dañ ñoo attaqué fii gaan si diggante frontière euh, bene Burkina quoi si 9h gi nag bëccëg gi bëccëg gi gaan la ñu gars yi kar fii ñu nag ñu nag oto yi encaissé suñu moonin seey jiyaat bis xaw ma nan bis teguñu lu leer. ton permis avec portefeuille est-ce que lui n'est pas parti avec le portefeuille les djihadistes waaw billaahi